ñii de bokk ci mbëri naan du ñu ataaya ah mbër mi day day des effets tarxis parab bi laa àdduna teraanga bi daa jëf nopp àdduna de lépp teraanga la ah non bu yoboo bu yoboo ku dund loo fekkee de. di def lu baax te di ko wax ku la tooñ nga ba nga nga ko te yàlla. tax waaw Cheikh Tidiane. waaw dégg lu ma la barki Cheikh jeex ba noppi. billahi wallahi jaamu yàlla moo fi nekk. jaamu yàlla ak def lu baax. mais gi di ko wax koo mën a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax te ku la tooñ nga jégal yombul na billahi wallahi tallaay yombul de waaye nag nañ ci góorgóorlu rek. waaw yombul. yombul mais nag mais mais Gris man damaa yaakaar ne tey jii da ngaa ah. tolluwul boobu mu neex ndax xam naa ne sa daa nekk ci Sa Thiès nga xam ne nii moo jóge ci ndam lu rëy li mel ni sa xel daa nekk dafa mel ni sa dafa nekk ci Sa Thiès mais mais Fadam mais Fadam réseau bi xanaa du ci moom allo Fadam waaw Fadam réseau bi mënul nekk ci man barki Mamadou Lam non ci yow la ci yow la <laughs> mais dafa mel ni sa xel dafa nekk ci Sa Thiès ah ah ngir Sa Thiès de Sa Thiès moom ah, ah, ba ba ko na ci boy yi nga xam ne non passé gaynde la guerrier la buy bëre day ñëw du toog di calcul bu bëre day def li mu war a def nga daan ko parce que moom moom moom làmbam moom day ñëw xam nga moom moom moom gaynde la ci bëre day ñëw li am daw am joxe ko du fi nekk di négocier bërëg moom bërëg moom bërëg moom dina neex trop <laughs> waaw te sawar naa moom parce que làmb làmb làmb catégorie bi moo fi nekk faram say bërëg say mag bërëg bërëg say morom bërëg say rakk te ñooñu suñu rakk lañ ak ñeneen ak ñoom comme ay rëg-rëg ak ñoom ñëpp génération boobu tey bu ñu làmb boole ñoom dañuy bërëg ñoom parce que tamit looloo fi am bërëg bërëg say moroom bërëg say mag bërëg say moroom bërëg say rak te Sa Thiès moo rëg rëg ah mais giri giri sa combat ak sa bu taxawoon ak Sa Thiès noonu muy doxee ci ko mbër yi ah. ma ne sa bu taxawoon ah ak Sa Thiès noonu muy doxee ci ko mbër yi ma ne sa combat ak Sa lu mu taxawee. ah. ak Sa Thiès ni muy doxee ci kaw mbër yi bu ko doxee ci kaw Gris rek waaye xam nga ma xam nga ma xam xam nga ne mbër buy dox di ñëw ci sama kaw sa sawar naa sawar naa ci lool da a wax loolu rek. ah mais Gris Gris Sa Thiès day dox ci man loolu loolu loolu lu ma neex la lu ah, bi xatraay rek sànni ay laaw xam nga loolu loolu loolu loolu loolu <laughs> ah day ñëw ah, de bagaar day ngàcc ay ngàcc ay marché lay dóor ay daga ay ay mba ay ay ay ah yow xam nga ma da maa bëgg wax loo rek yow yow yow da maa bëgg a loolu lamb la bu am ma ci woo gaa yi ma ci gaa yi ma ci cuq ma ci woo fu nekk nag di ma kar karee nag xam nga. ma ne loolu moom wax dëgg yàlla loolu mënul des ci man xam nga. Hmm? Sathies Sadio Soumaré war na war na war naa war naa ko mën a jox may jox chance pour mu bokk pour mu bokk dans le cours des grands bokk bëre gaay ci kaw booy bu am yar la booy bu mérito bokk bokk ci gaay mhm. booy bu ma booy bu ma naw la ak ay morom ak yu mel ni booy génération boobu yëpp dañu war a ñëw fet si gaay ci kaw comprendre non ñaari combat yi mu taxaw ñaari kombay yi mu taxaw Reug Reug Lac de Guiers. waaw waaw waaw waaw mais nag Sa Thiès Gris Bordeaux nag bokkul ak Reug Reug Lac du du du benn. du benn ah, du benn. ah du benn bokkul sax. Sa Thiès Gris Bordeaux mooy gën tàng. du du du du benn. non non du benn bokkul bokkul bokkul. Hmm? ah. Sa Thiès ba ko. mbaa du jàngi ji xeex. ah. moom Mbaye Sakess du jàngi ci xeex. ah. nga mën a jàngi jàng boo jàngul xeex sax nga jàng moytu. waaw boo jàngul xeex sax jàngul. mën moytu waaye boo ci mënul benn moom ah. non. ak bu mënti mooy boo mënul moytu sax. boo mënul xeex mënul moytu xam nga parce que nag boo mënul ñaar yooyu yëpp xam nga day non neexul ba neex mais grand non non yow ma barki borom daaru ma xala mais faram àddina teranga la mais sa waay kaase bi moom du taxaw mais sa waay ataay sama gaam di ma jëm ci daam daal di daal dama ñëw toog mais Gris Gris Gris yaakaar naa ne sa combat sa sa combat bu taxawee nga boole ay avance ndax dafa jot nag Gris Bordeaux jël ci quatre avance ba cinq avance yi dafa jot. ah. ah Gris. ma ne sa combat Sa Thiès bu taxawee combat bi yokku lamb la. non combat tey am na làmb noo ci yàggee rek soo bëréwul ak quelque ténor mën nga yàgg ci parce que Sa Thiès nag yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na ci bunt bi te mënul accéder ci kaw comprendre nga yàgg na ci bunt mënul accéder ci kaw mais làmb ji mu jógee nag daay war nañ ko mën a jox loxo may ko chance comprendre waaw comprendre naa baax comprendre ndeysaan loolu am na solo kay lu ngay dagg rek lu sa bànneexul waaw waaw non giri fi nga nekk moo amul réseau man fii lay live chaque jour mais fi nga nekk moo amul réseau quoi fi nga nekk moo xaw a ah. moo tax réseau bi normal quoi ma fi nga nekk moo xaw a xóot moo tax réseau bi normal mais yakaar naa ne yakaar naa ne sa diggante ak Sa Thiès

gars yi bëgg ko bàyyi ci làmb ji nii comme ça nii ma ça fait un an deux ans bëriwul mais jaaduwul ah. du yoon de ah moom Mourou Anta bu Thiès combat la de. waaw billaay mais jaaduwul. Gris parfois loolu laa Mourou Anta bu Thiès combat la de. affaire yi moom mënoo comprendre parce que tamit bon. Euh, du yoon mu toog pendant. temps bi mu toog yëpp di chemin bëriwul yoon jaaduwul waaw bëri na ci kawam deux fois bëri na ci kawam ñaari yoon ba ñetti yoon mm-hmm. du yoon xam nga moo tax gars yi il faut ñu xel nag ci ci la bokk nag wax dëgg yàlla waaw mais Fadam mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw nga dëgg daf waaw damay def Gris Bordeaux commentaire commentaire religion rek gars yi moom leen hmm? waaw léegi mais problème man li sa problème mooy comme Gris Bordeaux dafa boo gisee yeneen ñaari avance sax yu ah. bokkut bu Ama Baldé da koy jël ndax foofu nga toll ci làmb benn waaye dafa xew xam naa ne dafa xew de maam yow ah. mais mais dama ne. Euh, bàyyi ma ñaareel ñaareel attanaguma ko wuy ma man li ma la bëgg a laaj li ma la bëgg laaj laa bëgg nga tontu ma ñaari avance ba ñetti avance dafa xew ci làmb rawatina période bi nga toll ci làmb ndax tey ah, jii Gris Bordeaux buñ ko indiloon yeneen avance yi bu Ama ah, Baldé ndax da koy jël comme ça nii wax fay blu booy booy rog muy bërëj ñoom noonu fay xaas bu xaas baax ah kase kase kase kase booy booy bërëj ñoom xaas bu takku lañ may fay xaalis bu xaalis bu bari lañ ay Sa Thiès su may bëri ñoom xaas bu bëri lañ may fay de. barke Khalifa Malick billaay wallaay. déet waay. non sama xam combat Sa Thiès làmb mënu ko. combat Sa Thiès làmb mënu ko gën a rëy ci àddina amul. barke Khalifa Malick billaay wallaay. Hmm? waaye boobu gërëyee la te day waaye boobu gërëyee la der la. ah non combat boobu musul gis bu taxawee ñu am combat doy waar Reug Reug nuñ duyee stade bi rek am na ay ténor sax yoo xam ne tey seen mënuñu feesal stade bi noonu am na ay ténor yu nekk ci lamb ji seen public tollu noonu déedéet waaw kon xam ne nag ñaari mbër yu nekk am ginnaaw lañ déedéet comprendre mm-hmm. comprendre waa ne mais mais mais. waaye nee na est-ce xaar ba jël ñaari avance. waaw ay benn avance toog di xaar ba kañ. man bu nekkoon ñaari man bu ma jëloon bu nekkoon ñaari avance laa jëloon. Ama gaañu la damay dem bëri ji beneen combat voilà. mais Ama Baldé ci boppam sax Ama Baldé ci boppam sax bu jëlee yeneen avance yu bokk te Gris Bordeaux war a jël ndax foofu la toll ci làmb foofu la toll ci làmb